jëm ci wàllu bor bi nga xam ne rek bi yoral na ko état bu Sénégal jëwriñ ji bi jëwriñ xam ni nag ni Canal Plus bi nga xam ne rek fanweeri at mi ngi fii ci biir réew Sénégal mësta am licence de distribution ji di Aline Sall nag jamono ji ma ngay génnee ab arrêté boo xam ne rek dañ ci identifier entreprise de presse yu Sénégal l'info yëglekaay nekk état bu Sénégal kay ma ngay amalub jàngat jëm ci taxawaayu presse bu Sénégal yéenekaay bi ne ay révélation ma ngay bàyyeekoo ci Aline Sall mi nga xam ne rek mooy jëwriñ ju ñu dénk wàllu communication ci biir yëglekaay boobee ma ngay xam ne ni groupe Futur Média nag moom yor na lu toll ci 40 pour cent ci ay dette fiscale yoo xam ne rek yoreel na ko état bu Sénégal RTS daal ciy topp am lu toll ci groupe des médias door ñëw am lu jëm nag ci wàllu fond d'appui bi nga xam ne rek moom lañ daan dimbalee presse bu Sénégal yéenekaay bi ne groupe Futur Média daan na ci jot lu toll ci 69 millions groupe Walfadjri jot ci ñaar lu toll ci benn milliard ak juróom nga xam ne rek ñu ngi yeewoo fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne lu toll ci huit cent millions yoo xam ne rek daan nañ ko dugal ci ay yëngu yoo xam ne rek dañu ko daan amalee ci biir entreprise de yeneen ak yeneen moom jëwriñ ji ma ngay dellu siwaat nag ci juróom fukki presse écrite yi nga xam ne rek moom la ñu jot a recensé ak juróom fukk ci ay presse en ligne ñetti téeméer ci ay rajo yoo xam ne rek rajo privé la ak rajo communautaire ak commercial cinquante chaînes yoo xam ne rek ay télévision la la ca gën a doy yéenekaay bi ne mooy canal plus mi nga xam ne rek mi ngi ci biir Sénégal te soixante-quinze millions képp lay joxe ci wàllu redevance fi mu toll nii nag war naa jébbale lu toll ci quatre milliards Le Soleil yëglekaay xëy moom itam àddu jëmale ci ndaje mi nga xam ne rek jëwriñ ji doon na ko amal yéenekaay bi ne média bu Sénégal jamono ji nag taxawal nañu ab plateforme de recensement boo xam ne rek moom Alioune Sall mi ñu dénk wàllu communication ak télécommunication numérique nag daal dina ciy bu moom jëwriñ ji ma ngay leeral na nag état bu Sénégal amul benn jafe ak way taskatu xibaar yi lu jëm ci wàllu bor bi nga xam ne rek moom la entreprise de presse yi daal di yoreel état bu Sénégal jëwriñ ji ne presse bi ñoom ñoo nekk ca bopp ba lu jëm ci ndimbal gi nga xam ne rek moom la état bu Sénégal daan dimbalee ñii di ëtt taskatu xibaar yi yéenekaay bi ne gis nañu ci ay loxoor yoo xam ne rek tax na ba waa IGE jug nañu taxaw jamono ji nag laas yëglekaay ni ko moom kay état bu Sénégal ma ngay fësal nañu daan tongtongee nag loolee di aide à la presse lu toll si juróom-ñetti téeméer ci ay millions daan nañ ko séddalee ci diggante ay copains ak i coquins ñeent fukk ak juróom ci téeméer boo jël nag ci ay koppar ñu daan ko jébbal ñoo xam ne rek dañuy mbubboo ay taskatu xibaar jëwriñ ji jamono ji nag ma ngay fësal listub organes yi nga xam ne rek daan nañ ci bénéficié wu te nga xam ne rek bu ñu ko xaymaa daan na toll ci benn milliard ak lu tegal lii quotidien xëyee tey jii ci journée sans presse bi nga xam ne rek doon nañ ko amal yéene bi ne waa CDEPS si jamono ji nag ña ngay jubilé ñoom waa patronat bi nag ña ngay xam ne nii média africain yeeg européens yi naka noonu américains yi nag ñoom ñëpp àddu jëmale ci journée sans presse bi nga xam ne rek doon nañ ko amal fii ci réewu Sénégal waaye jamono ji nag ña ngay xam ne ni nag dàq ñu benn yoon waxtaan woowee nga nga xam ne rek ci la leen état bu Sénégal di woo addu jëmale ak Sud Quotidien moom nag ma ngay xam ne ni daal lu jëm ci adoption bu ñeel loi bi nga xam ne rek moo soxal jooyantiwaat yi ñu doon amal ci règlement intérieur bu assemblée bi ne député yu ubbil nañu buntu bi kii di Ousmane Sonko fi mu toll nii nag bal bi ci kawam la nekk élimaanu joriñ bu Sénégal mën naa amal déclaration politique générale ma Walf Quotidien ne ko lu jëm ci wàllu DPG bi nga xam ne rek moom la Ousmane sonk war a amal bennoo ma ngay dànkaafu Ousmane Sonko di ko xamal ne mbir yu du yomb ci ci moom les éco yëglekaay ne ko lu jëm ci wàllu proposition de loi bi nga xam ne rek moom la doon jooyantuwaat ñeel règlement intérieur bu assemblée nationale député noppi nañu ngir lu jëm ci wàllu dissolution Abdou Mbow di xam ne ni nag bu leen neexee nañu tas assemblée nationale bi tribune yëglekaay ne ko moom kay règlement intérieur bu assemblée nationale jooyante nañ ko fi mu toll nii nag amul benn prétexte boo xam ne rek Ousmane Sonko dina ko am ngir bañ a dem ci assemblée nationale Doudou Wade di xam ne ni daal fileeg amalul déclaration politique général am nag na jàpp ne dafa mel ni rek ab roppalaan buy daw te amul plan de vol la yéene kaay bi ne fi mu toll nii kay ci Ousmane Sonko rek la des ndax député yi woote nañu luwaa bi waral muy samp laaj na premier ministre kañ la nar a amal DPG ma fileeg ñuy xam kañ lay doon ñu jàll ci l'observateur addu jëmale ci ex DG bu ONAS docteur Cheikh Dieng ma ngay génn ci pat pataaral gi mu nekkoon di dal ci kaw jëwriñ jii di Cheikh Tidiane Dieye moom nag ma ngay xam ne ni daal dafa am ab mafia boo xam ne rek moom moo am ca ONAS moom docteur Cheikh scandale yu mag mag yi nga xam ne rek nee na moo am ca biir ONAS ci biir Walf Quotidien ma ngay leeral dafa lànk ci benn marché d'entente direct boo xam ne rek jëwriñ ji moo ko doon imposé ci biir enquête yëglekaay moom docteur Cheikh Ndiaye mi fi nekkoon DG bu ONAS ma ngay àddu jëmale ci li waral ñu dàq ko ci bopp ONAS lii nag jàpp na ne ab règlement de compte la ndax moom nag dafa jàpp ne jëwriñ jii di Cheikh Tidiane nag dafay amal ab campagne di yàq ndax woto boobee nga xam ne rek moom la ñuy tudd ne da koo jënd ak lu jëm ci ay recrutement yoo xam ne rek nee ñu ko amal ci commerce loolee lépp naka nee na dara du ci dëgg ci biir les échos moom docteur Cheikh Dieng ma nga cay fësal ay preuve ba noppi nag di tuumaal jëwriñ ji di Cheikh Tidiane Dieye ma ngay ñaw ñaawlu mafia ak manipulation bi nga xam ne rek jëwriñ ji moom lay amal ci bopp ministère bi ñu ko dénk loolaa waral ba docteur Cheikh Tidiane Dieye indil ko ay jafe-jafe ba dàq ko ci bopp ONAS Le Quotidien yëglekaay ne ginnaaw bi ñu ko dàqee nag moom Cheikh Dieng ma ngay dugal Cheikh Tidiane Dieye jeexalee ak l'observateur rek lu doy waar li nga xam ne rek xew na ca douane bu Mbuur yéene kaay bi ne benn français bu am juróom